ñetti euh, candidat ak benn yi nga xam ne nee nañu ñoom jàll nañu parrainage bi ñooñu nag léegi conseil constitutionnel day càmbar seen dossier dafa am juróom-ñeenti dossier pièces yoo xam ne moom lañ leen laajoon laaj nañ leen certificat de nationalité laaj nañ leen extrait de naissance ko photocopie carte laaj nañ leen extrait de casier judiciaire numéro bulletin numéro 3 laaj nañ leen déclaration sur l'honneur buy wane ne ñoom amewuñ l'impôt réew mi amee lu ñu fiscalité bi benn impôt ils sont en règle loolu yëpp nag conseil constitutionnel da koy jël benn par benn daal di jël ay jumtuwaay yi mu am moom pour vérifier ndax li nga def ci pièces yooyu dëgg la bu ci amee benn pièce boo xam ne bii la nga ca def méngoowul ak li am euh, évidemment dañ lay éliminer